سره مكار علمني الرحمن بشفينا بأنني asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nin leen ko doon waxe fan yi yëpp rek di waajal bés bu màgg bii nga xam ni moom mooy moom la ñuy laytaale bésu 21 septembre bi tey jii di la 20 ñu nekk fii ci bërëb bi di jaamalaay ngir indil leen exposition bi nga xam ne at mu nekk daan ko def ci bésu le bi waajale ko itam ngont maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne at mu nekk dañ koy jagleel guddi le vin bi fanaane fi waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall fanaane fi baatu zikrullah kuréel gi nag nga xam ni li ñuy def lépp ñu ngi koy def ci ndigalu sëñ Mountakha ni leen ko waxee ci plateau bi jiitu euh, suñu taxawaay bi ñu amal ko ak euh, ki nga xam ne mooy Cheikh euh, Makhtar Diouf mi nga xam ne moom la sëñ Mountakha tànnoon mu nekk ci boppu kuréel gi wuutu fi sëñ Cissé mu di sëñ Alioune Badara Cissé waaye wuutu ki nga xam ni itam mooy sëñ Baba Guèye wuutu ki nga xam ne mooy sëñ Nazirou Touré mi nga xam ne moo jëkk nekk ci boppu kuréel gi ñu àndandoo nag ren jii di ñaar fukkeel ak ñeent édition bi nga xam ni mooy fàttaliku julli géej gi nga xam ne moom la sëriñ bi defoon fii le 21 septembre 1895 tey jii ñu nekk ci le 20 septembre 2018 euh, di waajal bésu suba bi di 21 lii image yi incha allah yéen jamono yi ngeen koy seetaan dañu fekk itam ñu ngi waajal julli ji nga xam ni euh, Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadim moom moo koy jiite si te xam ngeen ne lu jiitu daan nañu taw feex sëñ Abdou Hakim daan na jiite julli ji sëñ Muntaxa nii sëñ Touba tey jii daan na jiite julli ji waaye Cheikh Mamadou Mourtada moom sëñ Touba ci boppam jiite na julli ji ci ndigalu sëriñ Saliou mi nga xam ne moo joxe woon ndigal ñu amul bés bi. kon nag duma def lu dul ànd ak Pape ministre bi nga xam ni moo di ministre d'État Serigne mbay Ndiaye mi ngi ànd ak waa ministère de la culture. ànd ak euh, jëwriñ ji sëriñ Makhtar Diouf ak euh, mboolem waa kuréel gi di xool li nga xam ni di def li ñuy wax vernissage exposition bi ñu ànd ak Pafal euh, wan leen ko ba ca kanam incha lii rek dafa doy sëkk ci doylu sëñ bi mu ne xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa tux nii kulla maa xiini foqultu xasbiya rabbi wa tafaytu bihi walastu raadi xayral ilmi wa diini hmm. nee nañ mën naa jéng jëm ci buur yi boo ko defee loo bëgg na ko am waaye man xam-xam ak diine rek mooy li ma ñor leneen ñoruma yaakaaruma ragaluma kenn euh, ku yàlla ndax yàlla moo may woomal moo may musal nu may jaayale samay mbir di ko jëme ci ñoo xam ne lot nañ ci seen bopp walla wala mu may yóbbu ci may bëgg poñeti àddina poñeti ñi nga xam ne dëkkaale ak ñoom mooy dëkk dëri saytaan yi man bu ma amee lu may tiit wala lu may bëgg damay ñaan borom aras mu may ma ko mooy kiy dimbalee lootul ci dara lu mu bëgg rek mu am kon euh, bii gis nga ko ñii ñoo doon sàkku ci moom pour mu jege ñooñu fii nag mooy jamono ju njëkk ji gis li ngay wax nii mu nekkoon jamono la joor jamono yi la joor nga jamono ji itam booba réew mi dafa doyoon lool lëndëmoon ñuy foye alxuraan di ko caaxaane di ko taasoo gis nga mooy gis nga góor ak jigéen a ngi jaxasoo gis nga ñee ngi jabar ñee ngi tëgg làmb ñee ngi bëre ñee ngi sabar ñee ngi tux moo tax sëñ bay moo sëñ Musaa Ka naan ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di dagu seef yu wuri faf nasaraanu ñu jaxasoo kàngami ak nasaraan nasaraani ñii dafi xaadi ñii dëgg ànd ak naar yi ñii doomi soxna daal di sampe daara te dong ak jigéen ñi mel ni saara sëriñ mu ànd ak saa yandu caaw ndaw jaxasoo bambaa defet ak caaw sëriñ si ànd ak wuuri faf di daani ñële di dox di foon ñëlay doxaani ñële di wàññilu ñëlay bandaani ñële di dariyaari ñële ñëlay waañaani góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo di caaxaan lamb ye gor sabar yëpp jaaxaan kenn amatul xasdu li wajhillaahi kaange ke foori faf di jaanillaahi islam di jooy yi kat bëggee na gàddaay ci soowu jant fépp mel ni làmbaay Seex Bamba dal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla may safi kulli jiili may xaadimu rasul fii suudaani may ramu xarnu bi ani niiraani bur yàlla daal di signé jox yeneen ba mu signé gars yi daal di jiital Bamba matadi wéer wéer maa yomba yëpp ay jaar-jaar la léegi bi nga xamee ni jóge na ci étape bi muy le 11 novembre 1902 la ñëwaat Sénégal bi mu ñëwee nag dem na fi ci dëkk yi door a dem nag Mauritanie Sanosi kër Serigne Góor Mag Jaw Màkk Samb baabu Màkk Kajoor kër Samb Serigne Ibrahima kër Moxtaar ñaxal kër Moxtaar Marème Louga waaw kokki kër kër kër Moxtaar Samb Diop Daaru Salaam Daarul Mannaan daal di le 13 juin nag 1903 mu daal di dem nag Mauritanie waaw léegi nag Mauritanie ngi nii mille le treize juin 1903 la fi la la la dem la dem Mauritanie la jóge Sénégal dugg Mauritanie Mauritanie dëkk yi la fa nekkoon Xomaak Jaraariya Sarsara Tontum wax siin avril 1907 la jógee Mauritanie ñëw ñu indi ko Jolof bi mu ñëwee Jolof nekk na fa dëkk bu ñuy wax Thiéyène Daaru Xuddoos Daaru Rahman mhm. am na fa juróomi at ci weeru janvier 1912 lañ ko indi njaareem mu am fa fukki at ak juróom ñu def ko fa résidence surveillée ci 1919 euh, juillet 1927 ci lañ ko indi Touba. léegi nag ñu ne ko ndax dangay toppanteeg ñi la doon teg nattu yeeg yëpp mu ne déedéet man bi al imaan wal islam wal ihsan rek laa gëm kon nag en fawtu anil ahda i turan li wacci man nafaahum li xayri samran la sax jégal naa sama noonu yëpp toppante wu maa ñoom ci lenn sëñ Maxtaar moom la def muy jàngale bu am solo boo xam ni gis nañ ko diir bu gàtt la sax mu tënk ko waaye nag mënees na cee jànge lu bare kon euh, ñu àndaat waa daan ci ñëwaat incha allah kon ñu àndaat ak rek euh, ak euh, sunu caméraman Pape Fall ñëwaat ci beneen exposant ndax euh, mbooloo ñu bare ñoo fi nekk di exposé euh, ànd ak ministre d'État ànd ak aussi euh, secrétaire général ministère de la culture ñoom ak sunu jëwliñ Cheikh Makhtar àndandoo di xool li nga xam ni mooy exposition bi. ci thème bi ma jëloon ci ñetti sous-thème muy Cheikh Ahmadou Bamba et le Coran ak Kun Kaatima ndax développement la ñu wax te. développement dama ji dama man dama jàpp ci sama xam-xam bu gàtt ne il faut mu am déjà yar ndax sëñ Tuubaa ñi ñi daan ñëw ci moom seen juddu ak seen xam-xam nu mën a toll dafa leen daan yaraat yar boo xam ni moo tiim yar bi leen seen ay waajur yaroon ba su leen bàyyee ñu dem luñ ko sore sore xelam day dal ci ñoom ndax day xam ni ñooñu dootuñ yaradiku su ko defee mu sant leen liggéey barkale leen liggéey mi ñu toog jàmm yàlla ndax xel bu dalul borom du du mën jaamu yàlla njàngale moomu ci la ñu war a delluwaat il faut que yar boobu noonu ñu delluwaat ca ndax dañoo dem ba léegi mu mel na que jamono ji sëriñ bi dooree ñëw rek ci fekk diine na meloon dafa mel ne que léegi jamono ji loolu moo ñëwaat discipline amul nit ñi lu leen neex la ñuy def xam nañu ci axiru zaman lañu nekk mel na il faut que nit ñi delluwaat à la base pour mën am yar ak teggin su ko defee à partir de ci la ñuy mën sàkku xam-xam ndax xam-xam kenn du ko jox ku ku yarul waaw donc. Euh, lii dama jukki ay bayit pour wane relation bi sëriñ Touba am ak alxuraan si jaawatu laa ko jële jaawatu bil xurxaani rabbil mooyin malaktu nafsiya wa sasatu layin léegi dama ko dama ko dama ko bind ci ci wolofal euh, bind ko ci nasaraan pour ñi nga xam ne ñoo maîtriser nasaraan bi Serigne Touba dafa ci bayit bi nii dëkkaale na maag yàlla miy dimbalee ci barke alxuraan moom loo na ma sama bakkan sorel na ma seytaane donc je crois que loolu euh, ñun ñëpp dañu war a fexe xalaate noonu ndax alxuraan c'est fondamental am na ñoo xam ne nag léegi dañu jàpp ni alxuraan moom garaawul léegi mën nañ jàng rek xasida nga xam ne sax ku jàpp jàng cent vingt bu ci bis bi te xëy na mënoon na jàng ñaari isib wala ñetti isib donc il faut que nit ñi delluwaat ci alxuraan ndax sëriñ bi nag lii moo ko wax kon li mu am en principe ci téere bi la ko jëlee hmm. kon nit ñi war nañ delluwaat ci téere bi loolu soññ la bi naza a ah, nusi ali nooru lisani wal kitab asmaana xidmati lada ahli kitab xajal nañu ma leerub euh, leerub alxuraan leerlu ramiñu arab ak alxuraan ci sama jamono yi ànd ak liggéey ak nasaraat donc bi mu nekkee ci géej bi muy dem ci géej gi comme li ñuy euh, euh, màggal ni tey mooy téere boobu fekk nu suñu borom jël na leer ga ca nekkoon ak leeru lam ñu arab boole kook moom ci la liggéey liggéey bu mag boobu liggéey bu rëy boobu. sëñ Moussa Ka am na fu muy waxee naan bayit bi moo mag xasid ak jawartu ah. loolu yaakaar naa ne am na luñ ci mën a leneen lu ci mën a dégg diggante sëñ bi ak alxuraan incha allah. <laughs> Ah, en 2001 ñëwoon nga si exposition bi waaw man nag esthétique murit la euh, maanaam esthétique laay def maanaam si wàllum solol yëre waaw bii juróom-ñaari sëñ Sidi Moxtaar la. Euh, moom nañu indi nii si maanaam sol yi mu doon sol bii nag maanaam moom nañu wax collage waaw moom nañuy wax collage bii maam Cheikh Anta borom Gaawaan moom tamit ni mu doon solo mantu bu mu doon solo ak maanaam nii nañ ko indee ndax j'ai fait deux mois disposition à la galerie nationale maanaam euh, ministre waaw mu sur l'esthétique mouride avec euh, Mbagnick Ndiaye waaw waaw yii yëpp daanaka ñoom si seen ay financement la bokkoon si galerie nationale bi maam maam maam Thierno Ibra Fati maanaam rakku Serigne Touba bële tableau Serigne Touba la. xam naa du hasard ni nga dendalee. Cheikh Sidi Mokhtar ak maam Cheikh Anta. ndax Cheikh Sidi Mokhtar turam fii la jógee. waaw kay ndax Cheikh Awa Balla mi ko tuddee kii lañ ko tuddee. ak ak te kii itam Cheikh Sidi Mokhtar kuntiyu. moom la ko sëñ Mawla Ndesa li tuddee. est ce que est ce que bii nag sëñ Modou Moustapha bii nag tableau thématique la. yi maa ko maa ko liggéey parce que fii Serigne Touba dafa wax ni ne si ce n'était pas pour les fils d'Adam je ne passerai pas une seule nuit sur terre n'abusez pas de condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi car je suis le serviteur éternel et chaque génération aura la certitude que je suis moo nekk nii léegi ma indi jamonoy sëñ Modou Moustapha moo nekk nii bi jamonoy Senghor euh, kii sëñ Fallou ak Senghor bi jamonoy sëñ Abdoulaye ak euh, président Abdou bi jamonoy eh, eh, eh, sëñ Saliou ak ak Ablaye bi jamonoy sëñ Sidi Mokhtar ak Macky ak ak ak Sall ah, ñu indiwaat encore bii mëbatu la moo moo fi ñëwoon siyaare si ñëpp si ñëpp laat maanaam gis nga di sëñ bi waxoon ba si Mohamed Ali ak ñii ñëpp ndax sëñ bi dafa wax ni ne sans borom Euh, euh, euh, Dieu a proclamé que je suis un, que, que je suis un asile et un recours. Mm -hmm. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà mhm. doit, doit chercher auprès de moi. Bon, fii nag moom fii moom fii nag fii la cappaacoli Guinée. Mhm. fii bureau Ndar la. Mhm. ndax jamono ji sëriñ si 83 marabout yi maanaam gàntalu l'islam sëriñ Tuubaa moo fi nangul l'islam fii nii. moo ñu dogal buuma njaam gi ndax su boobaa su su su su ñëwutoon su su su ñu nii nañu mel ndax mu njëkk ba lii la tubaab bi maanaam nit ku weex yi considéré woon maanaam nit ku ñuul. mooy takk buuma njaam jël jël buum ah, ah, nos si saw bakken ah daanaka di la wu gis nañ ko bu baax mu am solo lool muy taarix eh, bu am solo indi ko indi itam esthétique nga xam ne boo xoolee nataal yi rek day mel na da jàkkaarlook jàkkaarloog jëmm yi muy lu am solo eh, ci exposition bi eh, yàlla dogal na muy exposition boo xam ne itam day wër fu bare bare ci biir réew mi te loolu yëpp jàngale mbirum sëriñ bi la mel na ni itam ay tableau la yoo xam ni ñoom it dañuy wane rek lii poroxaan la Euh, fee itam beneen tableau sëñ euh, euh, Cheikh Diatara ak ñoom it muy tableau bu am solo boo xam ni sëñ Pape Diatara lan nga ñu mën a tënkal fii ci sa liggéey bu am solo bi. Ah, maanaam liggéey bi ñaari tableau la. Uh-huh. yoo xam ni dafa bokk ci benn série bu ñuy def. Mm-hmm. boo xam ni liñ ci jublu mooy mu aboutissement bi nekk ci benn forme livre illustré. Mm-hmm. buy retracer jaar-jaar yi bi daal waaw. maanaam bu dee bii nii hmm. dafay wone eh, day indi ñaari béytu sëñ bi ñetti hmm. bayit daal hmm. ñaar yoo xam ni eh, ci géej gi benn bi ci géej gi la ko defee benn mu defee ko bi mu ñibbisee gànnaar mooy bi mu wax yi bàyyaatu fil baxari taxta sajara wal baxaru musbidu wa xawlil fajara mu am traduction en français ci suuf. Mhm. mooy de mon exil au Gabon au milieu des impies et des vagues déferlantes. Mhm. j'ai signé un pacte avec lui le prophète au pied de l'arbre mhm. léegi beneen bayit bi. mu indiwaat ko bàyyaxtuhu fil barri. waaw taxta sajara wal barri tayyibun wa hawlil barara hmm. mu ne sur la terre la fii fil barri waaw mu ngoog waaw moo tax ñaari opposé wu nii ah. ba pare illustration bi fii ah. mu mu illustré scène bi jéeri ji waaw hmm. dégg naa am na ko doon laaj sànq sax ndax am na image bi wone sëñ bi fu muy bindee ah. waaw lu yàlla dogal na moo waaw mi ngi fii moo ko doon laaj waaw <laughs> léegi moom moo nekk fii en France ci suuf mhm. sur la terre ferme et paisible en Mauritanie mhm. au milieu des vertueux j'ai encore signé un pacte avec lui le mhm. prophète au pied de l'arbre léegi nag ñu daanelee ko bayit bi mi wax farextu bi anna allaha baaqin wa saaqali jamihal muna wal bayhu fillahi ma kasab je me suis réjoui du fait que Dieu est le subsistant. Il a réalisé l'ensemble de mes vœux et ma transaction en Dieu n'est pas déçue. léegi li n'est euh, pas déçu boobu nag mooy aboutissement bi. Mhm. Euh, ci jumaa yi Touba ji. Mhm. ak jumaay Njaareem ak jumaay Ndakaaru waaw isa sakaltu salikal mabita wa salikal lamira wa tajfita taarat ila jihaati fi narmaahi nafsi walakin zaba anil kon magoog loolu la ñuy fàttaliku tey jii la guddi gu mujj gi suba nag di bés bi nga xam ni ci la tàbbi woon ci géej gi gis nga pafal néeg bi euh, gobar yeeg rab bi yeeg yëpp moo tax mu ni woon bu ko fàttalikoo rek daal di ni ko Pape Diatta leerale léegi ci français daal di bëgg jël gànnaay waaye sallallahu wa salaam moom moo koy euh, dox digganteem ak loolu mu dellu si waat waaye fa mujjeek ñoom itam mooy afawtu ani la daay turan li waji man nafaahum li xar yi sarmadan la su at faw kon ñu yegg kon ci jël cérémonie bi